moo tax ginnaaw bi ma bañee kañam bi ba sonn ngeen expliqué ma mais ma am na ay Sénégalais yoo xamante ni lu ñu la def teg la ko ci ci injustice métti mu ne métti boo xamante ni suñ la gisee sax métti boobu day judduwaat ci seen biir xol te lenn bokk na ci li tax ñu war mën a fàtte métti boobu xëy pour ñoom ñu ne ah jàppale ko Pape mu fàtte xëy na dina apaiser bi ñu am ci suñu jëmm yi ñuy gis wala image yi ak ñoom i seen ñu dégg ci nag lu nekk. gën nañoo publier suñu page Facebook waaye ñu ngi ci réseaux sociaux yi di topp di xool ku ci nekk li ngay commentaire am na ñoo xamante xëy na communiqué bi moo leen induire sax en erreur mais am na ci ñoo xamante ne suñu ay xarit lañ suñu ay doomu ndey lañ ñoom communiqué boobu benn objectif la communiqué bi am Pape Abdoulaye Touré lépp lu jëm ci wàllu wér gu yaramam jël nañ ko entièrement en charge et à 100 pour cent donc su ñu taxawee di wax wala dafa bëgg def fond de commerce di ko dal loolu rek mooy explication communiqué bi amul beneen explication bu ko mën a jox parce que soo gisee euh, bu ñu lancé nga yor sama numéro woo ma téléphone pour laajte lu xew bi ma génne kaso ba léegi man ak yow musuñoo déggante jot sa message def naa fi seen comme partagé ko sama page Facebook ñu bëri ci ay Sénégalais yi ma xam ak ñi ma xamul woo ma téléphone di ma masam man musuma jot sa appel musuma jot sa message nga gis cagnotte nga ne da nga jot ay interpellation c'est normal nga jot ay interpellation mais man du ma la interpeller parce que man parti bi comme ko yàgg a waxee aw ma problème ak parti parce que orienté nañu débat bi ba jël ko ne Touré moo am problème ak Pastef déedéet ñun tey lañ gën a nekk sympathisant wu parti bi parce que dañoo bokk lu ñu gën muy projet projet boobu. nañ ko gën a gëm donc amuñu benn jafe-jafe ak parti d'ailleurs bi ak mbir xewee am na ci ay responsable bu ñu tudd seen tur waaye ay responsable yu bokk ci parti bi yu ñu woo apporter ñu seen soutien ak solidarité kon amuñu jafe-jafe ak parti bi xëy na tey mën nañu wax ni nit moo toog am jafe-jafe ak Pape Abdoulaye Touré bëgg koo réglé wee noonu te ñun ñu jàpp ne loolu c'est loolu irresponsable lu irresponsable la dans la mesure où ki bind communiqué boobu xamante nañu bu baax a baax a tax ma ko fekk dama koy nuyu jox ko wàcc waayam su gisee que nag la moindre mu jël téléphone am woo ma dama ah Touré ñun kat ne woon yaa ngi dund lii ci ay jafe-jafe waaye am nga fi prise en charge kaay nga jël si ko loolu amut dafa ñëw di jël na ko en charge à 100 pour cent wëlbu di ko wax ci même communiqué bi ne Amnesty International am na ay analyse yoo xamante ne sax moo ko sajal kon kay 100 pour 100 waxaat boobu war nañ ko xoolaat docteur Mansour bi yor clinique Khadija bi ñu bëgg la ngaabu nag <coughs> parce que man expliqué naa keroog ni bu may dem ci docteur Mansour kenn ci parti bi woowu ma demal ci docteur Mansour wax naa leen ko keroog nee naa leen Yolande Camara moo ma jël fi bu may génn pavillon spécial ak yéen ñii bi ma ne ko ah sama yaram de sentiment yi am na ay jafe-jafe. mu ne ma nañu dem am naa benn xarit docteur la yor na clinique bu boppam mi ngi fële ca Zac Mbao balaa ngaa yëg pont bi soo paasee Diouf Touré nañu dem ci moom su ko defee mu xoolal la sa yaram fekkee da lay fayal ko sax. lu lu lay lu mu lay fayal ko bu cher te man sax gëm naa ne laa demee ci docteur Mansour donc dégg nga communiqué naan parti bi orienté na ko docteur Mansour loolu amut amul kenn ku bokk ci commission sociale bu parti bi woo ma téléphone dama Pape Abdoulaye Touré ma ne naam nga ne ma demal clinique Khadija am na docteur bu fa ne ñun lay amut. moo tax man dama bëgg su may wax ma wax loo xamante ne su ma paree damay kit ak sama confiance waaye non nañu ko maslaha nañu ko rafetal lii jaru ko. Euh, man sama réputation man ci yàq loolu du ko nangul kenn sama honneur laa am sama réputation laa am sama waajur bi ma sukk jur su ko naroon remettre en cause ma ne ko ah maman wax fa dëgg yàlla kat lii du ko nangu assertement nag koo xamante ne xëy ci combat rek la ñu daje doon bokk ci ay plateforme ay ñoo lànk aar ñu bokk ak ñoo ngi seen su génnee communiqué te ba léegi nag parce que ñun boobu ak léegi lu tax waxuñu tamit dañoo jàpp ni bés bu renseigné woo xam ne dafa juum te nit am grandeur ginnaawaat communiqué ne ah damaa juum sur telle et telle question maa ngi par exemple sama excuse telle personne bi ma épinglé waaye tamit di di ko wax ni xëy na am na si présidentielle bi nga ñëw jël si ñun de loolu la ñu comme nag grandeur boobu amul parce que. bi mbir mi amee la lendemain samedi am na ñu bokk ci commission sociale boobu ñu ñu woo ñu bokk ci parti Pastef bokk ci commission sociale boobu ñu ñu woo bi ñu woowee nag waxtaan nañu ñun ñun xamal leen ni amuñu benn jafe-jafe ak parti bi amuñu jafe-jafe kenn ñun parti Pastef xëy na su fekkoon bokk parti Pastef mooy nga engagé wu kese mën nañu wax ni ci lañu bokk su dee engagement kese mooy tax nga bokk parti Pastef ñun mën nañu wax ni ci lañu bokk. waaye bokk parti mooy nga bokk ci parti bokk ci ay instance ba pare yor carte membre parti bi sañ a wax ci turu parti bi parce que loolu mooy l'adhésion formelle loolu su fekkee loolu mooy bokk parti bokk ñu ko foofu parce que mënuñoo jël bi mosuñoo dem émission wala plateau bu représenté ko parti bi te amuñu carte membre parti bi te ci benn instance su parti bi waaye su dee fervent sympathisant loolu jarul ñu koy prouver kenn. waaye Sénégalais yëpp xam nañ ni ñun projet bi am na liggéey bu am solo buñ ci def moo tax bi loolu amee vendredi le 19 ah ñun samedi le 20 bi woo nañu te ñi ñu woo waxtaan nañ ñoom lu yaatoo yaatoo yaatoo ñu xam loolu ne désormais am nañu prise en charge bi nañu ko ñëw jël fi fii ba suñu bëggee sax suñu wàllum évacuation à l'étranger mën nañu cee dimbali. kon lii tamit day ñëw rek pour réconforter ci li ñu nekkoon parce que su fekkee dañ laa woo après kanam ne la am nga prise en charge kaay nga jël ci ko kon loolu day wane ni kenn informé ñu woon ci prise en charge boobu avant donc lan moo tax ñu ñuy génne communiqué di yàq suñu def bëgg a gëmloo suñu ay mbokk sénégalais yi nga xamante ni dañu leen a nawloo ñu nawloo ñu kenn suñu wax gis ci lu ñàkk fay pour une question de ñaata million vingt million xaw ma mooy li ngeen fixé woon. vingt millions ngeen defoon comme objectif ñu ciy jaay suñu ngor pour quelle raison ñun gënoon naa nekk fii ah ñu daan nañu toog université yéen sama ay camarades ngeen bokkoon nañ chambre biir université daan nañ toog ticket bu ñu demee réseau sax duñ ko am te ñeneen ñi ma bokkaloon chambre yi aussi ak sama yeneen camarades étudiants mën nañu ñoo témoigner ñi ma bokkal coalition COCC ba tax ñu dàq ma après. mën nañoo témoigner li ñuy wax ay jamono yu méttee métti biir campus social mën nañ ko fa te jamono yooyu yéen a ngi doon yéen a ngi mën ngeen seede ni amoon nañu ay proposition yu ne man am na ci sama ay xarit ay camarades étudiants demoon nañ ba meralema ci loolu dama yow bëggoo teral sa yaay bëggoo dimbali yaay la te yow naka lañ lay woowee di la proposer ay millions di la proposer ay bourses à l'étranger nga bàyyi ko fi nag da ngay benn combat boo xamante ni yow xam nga ni lu Sénégal mënul baax yéen mën ngeen ko tey wane ah ñaata naa ci gëm la te damaa bëgg a nga xamante ne ñooy xeex pour baax Afrique baax waaye bu mu mujj am bëgg nañ ko am ay doom ak suñu ay sët ñu nekk seen fierté. way bi Cheikh Anta Diop am bëgg nañ ko am waaye way wii président Ousmane Sonko mu seetlu am bëgg nañ ko am ni tamit moo fi jar ñuy jaay suñu mor segam jamono jooju mu metti woon aman dane metti woon na lool amoon nag ay opportunité yu bëri waaye ñu xam ne opportunité yi ça va à l'encontre de notre de notre de waaw de ci li ñu gëm suñu ay principe moo taxoon proposition yëpp ñu ñu ko doon proposé xëy na sax ñu seetaan laaj bi te suñ ko déggee dinañ xam ne kii lu wax nii lu wér waaw c'est comme nguuru Macky Sall xam nga ne fa la jaay parce que ñaata jeunes ñoo xam yu nekkoon université ak dem bokk maire am ay privilèges yu dul jeex am ay contrat de travail di fayeeku chaque fin du mois di défendre Macky Sall bekk ci ongul xam nga ne ñooñu kenn torturé wu kenn tëggu leen ñun suñu bëggoon jaay suñu bor foofu la non seulement dinañ am xaalis mu ñu neex def te du mujj fenn waaye aussi waaye aussi waaye aussi kenn du torturer kenn du tëj kaso te xamoon nañu risque yi nekk ci suñu engagement teewul delluñu ginnaaw benn yoon donc soo génnee communiqué waxee ko nenn bi lenn rek lay wun lay waree Pape Abdoulaye Touré dafa bëgg a def foo de commerce ci feebaram te loolu amut ndaxte preuve war nañ leen ko valeur huit cent et quelques mille yoo xamante ni su dul woon Sénégalais yi duñu duñu dara ñu ko woon fekk te dinañ dikkaat après ci bilan kanam bi ku ci nekk ci yéen ñaar parce que kii moo yoroon Orange Money bi muy Malick Faye kii yoroon Wave bi muy Ibrahima Thiaw ku ci nekk dina ñëw ci bilan bi man ma revenir at ci bilan bi d'une manière générale donc lii nekkoon ay leeral leeral na ku nekk ñaan na ma ne ma bàyyi mu seet bu ci wax nga li nga waroon wax d'accord nañ ci bëggoon nañ leen ko nangul mais dañoo ne à seule condition ki bind communiqué pour communiqué boobu yàq suñu der bañ ciy dégg lu nekk commentaire bu nekk ñu ci na bindaat communiqué ne ah man de maa waxoon lii mais aw moon information yu baax maa ngi jéggul Pape Abdoulaye Touré loolu du faible du faiblesse loolu grandeur la juum te te te yow ci li nga juum du ci yow sax mais juum ñun te ni nga def dafa dem à l'encontre de keneen koo xamante ne image am ak réputation ak crédibilité am xëy na mën na ca yàqu donc nécessité la woon obligation la woon ginnaaw lii yëpp mu génnaat ne ah dañoo juum ñi ko partagé woon partagé waat moo tax tamit ñu ngi ñaawlu bu baax a baax taxawaayu jot na média gis naa la keroog sa benn publication nga koy wax te loolu laa gën parce que jot na média warul tombé ci corporatisme te ñu bëri na ci loolu lañ tombé am na ci ay sénégalais yoo xam ne dañ leen induire ñoo xamante ne ci mbirum corporatisme kese lañ ko teg parce que gis nañu laaj yeeg yëpp du suivre nañu ñu doon def ay laaj ba dañu teg si dof am na ñuy ñuy ñuy publier ay photo gis nañ ci xeetu méchanceté boo xamante ne ñun gëm nañu ne image torture su am woon am nañu sañ a génn ne Pape Abdoulaye Touré kenn torture ko image torture su am woon rien que pour bañ ka nekk ci ñoo xamante ne ay patriotes yu doon partage kañat bi partage kese man barki démb rek am na ma woo bugguma mais woo na ma ne ma yow ci déggul amul ndax statut rek ko day day day damay day victimiser wu ñun victimiser wu ñu ñun ay victime lañu on ne se di victimiser wu on est des